tàng kay de bu mu dal. nan la perte cent cinquante millions. ci deux combats rek ci deux combats. moom Tafatine moom Tafatine ñu ko lu ko jar moom Modou Lo fay guñ ko lu ko jar. lam moom xam nga ni moom booy bëri moom dañ lay fay lu ko jar. li ko jar moo tax ngay bëri waan bu la fay jar boo demee di lu mm. ma voilà boobu ba tey ba muy bëri ba rek chaque jour ne oh tey kii mu rey ko comment mosu topp di ko laaj lamba leen boole mosu ko topp di ko laaj lamba leen di boole lamb moo leen boole ama dafa prouvé comprendre mu la dafa nekk si ay gàllankoor mu la dafa tegalee ñaar ñaar defet pare Eumeu Sène may ko sens. doon roi ñu fay fay ñu fay millions damay dindi 20 millions dollar ko muy 100 millions ñu bëri. mais ñu xool ne jamono bi ñu toll si làmb surtout ñu si millions yi ñu ko si yeneen combat tamit. gars yi ñooy gars sponsor yi sponsor mm-hmm. yi ñu ngi mm-hmm. leen naan la sponsor doon ñu gis Ama Baldé ci durant 4 ans jëran mu bëre ci benn combat muy contre Papa Sow est ci jeune bu doy ni moom xale bu doy ni moom yéen a ngi bàyyi loolu ci xel ci carrière am. waaw xam nga làmb ji làmb ji promoteur yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy def mbër mi du bëgg a bëre tax mu bëre. kon fekkoon ko chaque jour mbër yi dëkkante bëre man du lool làmb ji promoteur ñooy tëgg làmb yi promoteur bu ne amul xaalis nag làmb ji nu ame amee. combat ak Ama Baldé ñaata ngeen ci soxla. waaw loolu après kooku moo xam ne yow li ngay fay doo ko wax loolu promoteur bi la ñuy ba juumam si kàddu. yow li ngay pare fay nañ leen quatre-vingts millions. waaye kese boo xam ne Ama Baldé mosu koo laal ko. Ama na war na mën a bëre milliard. waaw li muy def si lamb ji yéen yéen gis nga ko ban mbër ko siy def. dëgg la. boo seet bu fekkee nga kontaan. Mm-hmm. bu bëree nga kontaan ban mbër koy ah, boo xam ni est-ce am naa wala am naa lii lamb benn temps la gaaw a jeex balaa jeex nga leen sa bopp dof leen dina jàpp leen xam ngeen baax la ma leen wax bu baax ñu fa nekk ci ci ñex chaque jour combat risque combat risque hmm. mais yéen moo loolu gën tëg bëri wala yéen seen xel yi nga xam mooy yeneen catégorie ñun la eh, ma jox lees ma le lees mii dama combat lees la mu taxaw suñu moom lees de suñu mu taxaw tàllal naa ko loxo combat Modou ah, ki nga xamante ne mooy Ama Baldé ah? séntu nañ ko ren mu Brésil